donc c'est parti ah. waaw comme ni ma leen ko waxee woon euh, tout à l'heure ASC Jamono 2 avec Madar seen projet bi ñu nga xamante ni moom lañ teg muy Madar ak sama

देखिए ऐसे जमा ऐसे जमा दो ये हमको पता चला ऐसे जमा दो ये हमको पर पर जो तेरी पर सेटिस्फेक्शन है हम तेरी की मदद से हाँ सेटिस्फेक्शन ऐसे सेटिस्फेक्शन का वो तो आपका वैसे हम जमा दो वो जमा दो वो ना नंबर आप नहीं कर

partout dans le les gens nous parlent de ces produits. C'est efficacité, c'est important, mais surtout utilité ou utilisation. Donc, ça nous produit à travers notre gathering Info, qui est la source de notre information, la source plus sûre et très rapide. ma wax ñëpp ne tey HD Industry, c'est populaire de Diamono voilà tous les dirigeants les responsables de Diamono sont là pour signer un pacte à quoi des l'industrie. En tout cas, on est très fiers, très content. Ah, le président a été demandé, mais par exemple, c'est un département Aqua acheté. Mais selon l'homme, la famille, le best vous avez une communication Effectivement, on va faire pour que ce partenariat soit continué pour deux raisons. Premièrement, HD industries, aujourd'hui, ce qu'il nous a montré, nous prouve que c'est un très bon partenariat. Deuxièmement, HD Industries, demain, nous avons ce produit utiliser Mais pour le bon point de soutenir la gamme notre partenariat sera fixé et va rester en demeure. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Ah,

donc mu nekk loo xam ne nii vraiment lu mel ni lii bett bi nga fekk ñu ñëw fii fekk fi lu mel ni en toute sincérité bett bi waaye vraiment ci réseau bi très satisfait ci partenariat bi. yàlla yàlla nag jàppale ay sa bu baax. ñun ñu dugal loxo pare génne làmmiñ non non bi digoon suñu dugal làmmiñ pare génne loxo dugal nañ suñu loxo dugal suñu làmmiñ incha allah rabbi ñoom lañ gis ne waaw loolu lay wax waa ñu mel ni say jëf kàddu maa ngi dégg nii fa sa bopp yaa que le champion moo ko am est-ce que rëccu am na teewaay bi teew xam nga léeg-léeg nit ñoo ñëw doo waxal ñu ko sax ne war na ko xaw naa kontaan wala léeg-léeg moom tam danaa fekk yow satisfaction gën a am ci li nga doon xaar gaay ndax ay sa jamono yooyu nekkoon nga say am ay sa jamono yooyu sincère dafa romb suñu affaire pourquoi parce que effectivement neuf heures lañ fi ñëw man bi ma ñëw foofu de dix heures di on nous a signalé que dañ ko doon indi pour di satisfaction jàpp naa ne loolu weesu woon ça c'est la première satisfaction la deuxième mooy la mobilisation on a vu même monsieur le maire dafa am yoo xam ne bu amee ci quartier ñi ko ñi ko ñi ko bu ñu teewee ça veut bi teewul ça veut dire que ne waa ASC jamono de jëpp ñu nekk te ñun wax dëgg yàlla comme on est leader ci doon bi ñu nekk dañu ànd ak aussi ñoo xam ne ay leader lañu te ñii effectivement boo xoolee li fi ne nga xam ne c'est des leaders quoi li président wax dama koy dëggal avec le partenariat yàlla déwén ngeen gàddu coupe départementale indi ñu suñu directeur général pour changer ngeen won ñu seen bopp à travers geste boobu ñu ñu won suñu bopp à beneen geste parce que am nañu yeneen possibilité incha allah rabbi nañ def pour possibilité yooyu buy génn bu ci waa Sénégal yëpp di jëriñu tamit yéen pour ñu ci jëriñu di ngeen ci vraiment on est très fiers et très contents monsieur Ndiaye kii di nawetaan xam ne nawetaan dafa métti trop nga xam ne les ASC waxuma la sax temps bi ñuy entraîné di joxe ay transport ñuy toog di joxe ay regroupement dafa métti est ce que xaar ngeen tey jamono bi na leen benn def na leen ndax pare ngeen pour responsabilité ngeen ànd ak ñoom ci euh, est ce que loolu pare ngeen parce que nag damay damay damay wax ne produit boo koy def dafa laaj visibilité te booy ut visibilité da nga ko war a ut ci nga xamante ni bëri na mbokk ñu gis ne ay jamono macha allah yéen a ko waxal seen bopp yéen a ñëw stade Amadou Barry parce que ñu tey te match boobu koñ bi dafa amoon ñu tiit ndax ñu jongante la ndax ay suñu ñëw ñu mel ni kon bu ñuy ñëwaat da ngay gisaat beneen jamono de foofu ñëpp seen xagal dañ gën a ñëw est-ce que pare ngeen pour ñu partenariat ak loolu wala ngeen pour prioriser ay sa jamono ba coupe départementale bu noonu ngay wax ñu mën ko participer. sauf que xamuñu xamuñu ne nawetaan bi amul sponsor amul ASC moo leen a sponsorisé mën na leen a jàppale mais moo leen a sponsorisé donc ñun sponsor tey ji bu ñu ko doon ut wala sax bu ñu koy am mën nañ sponsorisé Orca wala Orca mais en ce qui concerne ASC jamono bi ak yenn ASC yi nga xam ne ñoom lañ tënkoon ñoo ànd ak moom tey bàyyi ko c'est comme c'est parce que am na ku ñu naxte loolu suñu yéen te comme que ñun ñoo leen tànn ba yéen ñëw leen vers nous c'est nous qui sommes venus vers vous te honnêtement on voudrait pas que ñu ci yéen ba ngeen ko ngeen ci loolu ci tout soutien de notre de euh, toute demande de soutien de votre part sera vraiment la bienvenue et am na lu muy demee sax duñu xaar ngeen ñu laaj soutien on a fait un geste déjà qui est qui est vraiment minime par rapport liñ mën a def incha allah am nañu yaakaar li ci kanam daanoo ko parce que comme que dañu lëngoo ñu bëree bëri bëri wax ji parfois bu mën a bëri ce sont les faits qui vont juger les gens incha allah ñu dinañ dinañ ay wax ji du bëri ku la dig nit yi bu la diggee reer nga wax daa gëm dina ko wax

boo ñëwee ci bopp balaa ngay commencé dara dafa war a borom gox comme que vous avez un maire maire bi mooy borom gox bu ñu ko weesoo suñu kilifa yi di fekk mooy suñu papa suñu yaay mais aussi deux mille deux mille c'est vraiment les populations la mobilisation gis nañ jaay nañ ne pas ku commencé jaay 9 heures jeex ak 11 heures c'est pas permis à n'importe qui donc vraiment remercier nañ ASC Jamono mais aussi remercier nañ bu baax population bi mu am am am qualité bi la vraiment mais monsieur monsieur s'il vous plaît une euh, yow nga ñëw di jàppale ASC yi euh, ku wax ASC la nga violence en tant que responsable la nga wax violence

combat Modou Lo ak Bombardier jël ñu doog ko ci man maa nekkoon président comité de pilotage. ñu génn ñu ñu gën a génne ci lamb ji loolu ci la bokk parce que ñun suñu suñu credo c'est vraiment la non violence. incha allah rabi lépp loo xam ne aussi mën nañ ko participer ba def na foofu ko vraiment mu violence ba ñu am dans les nawetaan ce qui n'est peut-être pas impossible mais ñu def ci merci monsieur Souleymane ñu ngi ci ASC boo xamante ni slogan mooy yaru ak ànd bu sàmm monsieur Raymond Ba

nous ger ay ASC Jamono 2 nous sommes des leaders ici dans notre quartier ren ASC Jamono dafa indi beneen facette facette bi mooy la am visibilité am xaalis xaalis boobu nag ren jii dañ ci ànd ak ak waa HD industrie ñun HD industrie lu ñu indil mënuñu ko euh, euh, mënuñu ko quantifier parce que vraiment ñun dinañ ci am xaalis boo xam ne ëllëg. dinañ ci mën a gérer suñu dépense man loolu moom gën a intéressé parce que man maay gérer affaire finance ci ASC donc lépp loo xam ne vraiment ñun tey am nañ ko ci mooy que c'est une satisfaction entière totale boo xam ne mënuñu ko mesurer parce que fu mu nekk nii nii nii nii nii nii ASC xam nga ko koy gérer wax xaalis lépp lu ñuy def xaalis waaw te loolu yëpp nag aussi su amee dañ ciy remercier toute l'équipe de HD Industrie. Je remercie aussi toute l'équipe, voilà, tout le bureau de l'ASC Diamolo 2, qui le président Bastien le président Manga, tous les membres du bureau. parce que aussi, ben nit nous nous ñëpp ñooy booloo liggéey ñu nekk benn ay ASC jamono nekk benn liggéey ak yeneen sociétés yi comme HT industrie bu ko defee ñu def benn link ensemble ñu doxal suñu programme bi nga xam ne moom la ñu fas yéene doxal fii ren. parce que ASC jamono ren dafa indi beneen façon gestion dafa indi beneen façon doxalin boo xam ne ñu dañ ci dugal suñu loxo waaw ci di ci def nag ah.

Je ah, remercie aussi toutes les autorités de que nous sommes là nous les pour suñu de Sénégal Je remercie encore M. Euh, Souleymane Ndiaye. di remercier HD Industrie Madar ñun ak moom ca kaw ca kanam ba département bi incha allah. merci kon euh, loolu mooy li nga xamante ni ñoo amoon ci journée bi tey fii ci Guédiawaye ak Guédiawaye Info nekk seen télé bi nga xamante ni à chaque fois nekku même benn photo véhicule les informations yi nga xamante ni seen bopp kon ñoo ngi leen di jox di ba beneen émission beneen numéro